Maty Sarr Niang bi ñu agressé euh, ba toj boppam euh, parce que tout simplement dafa demoon euh, fële ca division cybercriminale te xam lu mu tuddoon cybersécurité peut-être doon couvrir ay militants bon en tout cas xaw ma ñan ñoo ko agressé en tout cas am na ku ko agressé ba toj kanam gi mbir yoo xamante ni quand war nañ ko mën a éviter ci réew mi. bien sûr loolu lu ñaaw la loo xamante ni ñu ngi koy ñaaw maa ngi koy doog a yëg yaa ma ko yaa ma su fekkee noonu la amee moom vraiment c'est des c'est je pense que. Euh, autorités yi war nañu war nañu ubbi enquête ba xam ñaan ñoo ko def loolu ñu teg leen. moom filmé na ko kay voilà <laughs> mm-hmm. euh, gis naa photo bu fekkee loolu am na war nañ ko war nañ ko war nañ war nañ leen a teg loxo en tout cas ba yoon yoon def liggéeyam parce que mm-hmm. quand même euh, nit ñi euh, liberté d'expression autant da nga koy défendre tamit nga xam ni ni nga amee liberté d'expression critique gouvernement bi noonu la keneen amee liberté d'expression aussi critiquer opposition critiquer benn sa leader politique donc bu fekkee accepté woo aussi ñuy critiquer sa leader politique je pense que yow sa sa nekkul ci seen politique seen politique sénégalaise bi mm-hmm. fekkee da ngay da ngay jàpp ni képp benn journaliste bu wax dafay dafay ñaawal sa leader politique moo tax nga koy attaqué physiquement attaque physique moom amul dara lu mu def ci seen politique. Hmm. donc loolu c'est pas c'est pas c'est parce que ay violence la. Hmm. violence moom taxul ñu naan taxul ñu naan politique te violence pour man dañ ko war dañ ko war réprimer te dañ koy réprimer mooy ñi nga xamante ñoo ko def ñu teg leen loxo. Mm-hmm. Moustapha même pratique yi ñu ngi koy gisaat. mais même pratique yi ñu ngi koy gisaat encore une fois c' est c' est malheureux et c' xam nga li ma doon wax sànq ci euh, dañuy war yaraat suñu bopp. ñun ñi nga xam ne ñooy wax nit ñi di ñu déglu. Mm-hmm. mais de la même manière politique yi dañu war a yar seen militants yi. ñu def la différence mm-hmm. entre. seen ay adversaire politique mhm. ak journalistes yi mhm. journalistes yi quelle que soit opinion yi li yi ñuy exprimer Ayoba Faye mii bu ko neexee toog fii mu toog nekk journaliste mhm. yor carte nationale de presse am di liggéey wal fajri ba pare naan diw faral c'est ça liberté il faut qu'on accepte la liberté des gens léegi bu nekkee sur le terrain des du, du reportage il fait son travail de reporter boo ko ci wax bu fekkee da nga dégg mu wax lu la neexul amoo benn droit di ko wax quoi que ce Mhm. quoi que ce soit. Mhm. amu ci benn droit il faut qu'on arrête cette histoire là man Mati Sarr Niang je parlais avec elle peut je crois une heure une heure trente avant cette agression là. Mhm. parce que maa ngi échange ak moom par WhatsApp après avant may génn sama kër di ñëw la lañ ma woon benn photo ne ma Mati Sarr Niang dañ ko agressé ma ne bon ça me surprend parce que man maa ngi wax ak moom léegi. mais quoi qu'il en soit c'est des pratiques à arrêter et loolu il xam nga bu ngeen demee commissariat point E. ca taawu mm-hmm. Macky Sall yow ak maam Birame mm-hmm. wax ne dañ leen a agressé. Mm-hmm. wax ki leen agressé wax numéro oto ak yëpp. su leen police jàppoo ne leen nipp tëj ci kaso bi. soo lëggee bala ngaa agressé waat journal di nga ko di nga ko xaar. c'est vrai di nga ko xalaataat. tey jii les gens qui ont fait ça à Matissar Niang fu ñu bokk nañ bokk Pastef nañ bokk euh, PS nañ bokk AFP nañ bokk Gëm sa bopp nañ bokk fu leen neex la police n'a qu'à les rechercher en prison. ñooñu nag ñoo jar a topp nag. parce que l'agression physique. dafa amul place dans l'espace public. Mhm. il faut arrêter ces histoires là. Mhm. man parfois euh, il m'est arrivé euh, du temps du régime de Macky Sall et je me disais que comme Macky Sall jóge na fi loolu dootu am. Mm-hmm. mais temps yii dal na ma fi da ngay toog euh, def sa benn chronique wax si benn homme politique boo xam ne moom il a choisi d'être homme politique. Ouais. comme li ma benn homme politique wax bëri ki démb dama ko dama def benn laay wax ak moom ba wax ci moom ba mu xaw a ñagas tuuti quoi. Mm-hmm. après euh, ñu dégg téléphone di waxtaan ma koy ñuy waxtaan ci li ma ko wax mm-hmm. ma li ngeen ma bëgg a wax. voilà de la même manière tey jii il est il faut que les militants comprennent que ni muy Bougane Gueye Dany muy Ousmane Sonko muy keneen buñ nekkoon ay Pape Mokhtar Diallo non Pape Mokhtar buñ nekkoon ay ndiir kenn xamu leen. Mhm. jiitewuñu parti bëgguñoo jiiteem réew. mais kenn du leen wax dara. mais c'est parce qu'ils ñu leen di tudd di wax mhm. Mhm. il faut que ñu tijji xol yi accepter ko. accepter ko voilà. en tout cas mais vraiment c'est c'est désolant pour euh, cette femme là nga xam ne le régime de Macky Sall tëdd na moom tëdd na ci ay weeri weeri kaso. mu génn bëgg a jouir de sa liberté comme ça ñu koy agressé mais c'est c'est pour la femme. Mm-hmm. et c'est ça qui est malheureux en léegi dañuy jël nit ñi di leen catégoriser euh, jàpp ni journalistes yi dañu far ci pouvoir bi ñee dañu far ci opposition bi et malheureusement loolooy créer ay tensions. ba sax di si judd. et c'est dommage même même entre journalistes. léegi dafay dafay jur animosité parce que man damay dégg ñu ne Moustapha Diop. ci waa Pastef la bokk. Mhm. Walf euh, kay Walf dégg ñu ne Pape Mokhtar. ci waa APR la bokk. Mhm. ma mere ko. Mhm. bu waxee ma tontu ko. léegi finalement ñun ñoo fay nekk di dàgg sante mais encore une fois ayoba mi ñu ko doon wax sax on est dans un pays de liberté. les gens ont droit d'exprimer leur opinion. tant saaga wuñu tant que waxuñu lu bon. amul benn problème. boo demee France États-Unis fu mu nekk am na ay journalistes yu far. Pape Mokhtar gis nga le gars qui a créé Fox News. nëbbuñu ko année année 2017 xaw ma 2019 bii la la fa jugee parce dañ ko jiiñ ay affaire harcèlement sexuel. Mhm. le gars là ami intime à euh, Donald, Trump. Mhm. ñëpp xam nañ ne Fox News c' est un média qui appartient aux républicains en Amérique. ñoom nëbbuñu ko te pourtant kenn waxu leen ci dara. c' est vrai damay lire benn livre ak Colin Powell euh, mu ciy bind benn journaliste très connu aux États-Unis mhm. tur bi fàtte waa ji xam nga. lan la enregistré woon ci répondeur téléphone am. ci enregistré boo ma woowee jotuma rek xamal ne je suis

soo ma woowee jotoo ma rek xamal ne li may def mooy feet fexe nu ma def ba président jóge fi mais mais c'est ça liberté loolu mooy liberté d'opinion effectivement mais réew moo xam ne il suffit nga wax lu baax ci Pape Makhtar ñu ne ah, <laughs> di leen di ko bu baax a baax moom Mati euh, Sarr euh, Niang euh, di ñaan rek ñu kooku def boobu lay ñaawteef yoon dal ci kawam parce que si dara mënul justifier ngay attaquer nit même bu la tooñoon sax woo ko attaquer da ngay dem ci yoon yoon teg ko ci yoon moom mu la tooñ doo ñëw di ko attaqué physiquement encore que euh, jigéen nga koy euh, attaqué ba koy gaañee euh, ba mu si gis say dret tamit yooyu di la jaajëfal